arbitre bi ngi xool ñaari mbëri dox ci diggante Ada Fass Jokkel Ada Fass moom ngeen jàkkaar lool Jokkel moo leen wan ginnaaw ndeysaan ñii ne nañ l'expérience face à la jeunesse Ada Fass moo gën a nekk xale waaye Jokal nee na li mu ko magee bëriwul dama koo njëkk a bëre waaye ci làmb Jokal moo mag Ada moo ko jiitu ci làmb journée yi Jokal bëre Ada Fass bëriwul ak loolu waaye Ada Fass ndaanaan la boo xamante ne combat bi mujj ndam la fi am diggante ak dafa am bër arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 27 février 2022 Fallou Ndiaye Ndiaye production journée bi ci diggante Ada Fass Tapha Mbeur déggal ma Ada Fass Jokkel il est vingt et une heures trente et un ngeen jàkkaar lool Jokkel moo la woon ginnaaw Ada Fass cokkaas na day ñëw day ñëw Ada yaa ngi bëre ak ndaanaan ci làmb Ada Jokkel Ousseyn ñu ngi xeex ñoom ñaar baa li nuyu naa la xale yaa ngi noonu diggante Ada Fass Jokkel mais li ma la ci mën a wax ba mën a wax loo ci daal mooy Ada Fass na def ndànk. ah lu tax muy def ndànk. te xam ne Jokal ndaanaan la. Jokal bëri naa ku ne. Jokal ji bàyyi ji lu du ma bu ndaw. déedéet te ni ma gisee Jokal ñëwee tey Ada Fass na tey te xam ne combat du combat bu saa saaxe li examen la ci moom. su daanee ki nga xamante ni mooy Jokal mën naa dem fu ne ci làmb te am na ñu ma waxoon ne bu daanee digganteem ak kooku combat la bu a yegg foofu nag faaw mu prouvé tey ci kaw mu nag na jox Jokal na respecté Jokal xool ni muy xeexee Jokal. Jokal Ada jël na ko daan na ko Ada daan na Jokal doole yemul Ada daan na ko doole yemul Ousseyn doole yemul Ada daan na Jokal. mooy day dul fàtte tànkam Ada Fass di war moom doo plaqué ko ba mu jaaxaan baa ji li. daan na Jokal jël bu rëy. Ada Fass fan nga jëm Ada Fass da ngay jooy. ndeysaan ma ngay jooy. la muy jooy lan la. gàllaaj la. mankaani la. Adama Ada Fass. ndeysaan ñu ngi koy topp toppal te nangu doon. Ada ndab li lu mu lay def. lu mu lay def. am rek jóg daan ko. ak manière. Ada Fass ndab li lu mu lay def. ci barke Sëñ Fallu barke alxuraan kontaan jooy